sa li nga ñaari mbir war nañ leen ñaanal décembre ak samedi ah oustaz lutax ñu ñaanal samedi bi ku nara moy yalla ak sa gel da nga a samedi rek kon bu dé décembre nak bu dé décembre yalla nako yalla yàlla mais oustaz est ce que nekku dañ né tollu ci def ko ayul motax xalé yi di profito sen jamono tamit bayi leen xalé yee mom sen jamono ah ku tollu sa jamono do ko dox billahi bu leen jamono waré da ngeen ci am problème mais nak oustaz amna xalé yo xamné fa ñu génn ñu taggo dajalé leen sen dom yi ñu bok di lek di naan nga di len xol waaw kay oustaz amna ño xamne xol bobu lañuy bañ nak lima len wax duma ci delu gënal oustaz 31 fo nga yoru nak te 31 da bari siru kon ku bay sa dom yoru ñu këf sa dom <laughs> mais nak des fa nga gis pa bu tere ay dom na bu kenn génn yow ya len génne wa oustaz ne len bu kenn génn manam tere ne len ba tëju rek boy tëju ñuy tëji tëji xana day fekk pana bi nelaw ngay nelaw ñuy yoru ay bu boba kon ku ñëw fekku ci kër gi bala nga yewu ñu yegsi mais nag oustaz am na ñoo xam ne gars yi ñoo leen di génne de. bu leen déglu gars de. kon ku topp gars yi ba ñëw nag. bu ko laaj lan la daa biir rek. <laughs> mais oustaz yow est-ce que mës nga koo féete. ay xale de doon naa ko ah noo ko doon féete. ñun dañuy lakk ndaama raas rek di cotiser cotiser ba mu sakkan. waaw. ñu jënd suñuy ganaar ne fati noos bu ñu jëndee espre euh, euh, boisson boobu fi xewoon. coca Lisa. déedéet. waa oustaz Lisa yàggul di. ñun bi ñuy ñëw boobu juddoogul ah man may mag damaa defe ko ne la. boisson boobu daal. kon mbaa liminaat ngay wax kon. wala ngóor sàngu yooyu daal lañ doon jënd ne dañuy màndee. <laughs>